fàtte nag ne maye Ndeb ak Babou Ngom maa leen jëkk a indi fii ci lutte avec frappe stadium Iba Mar Diop donc bu ñu gisaatee séeréer yi tey dinañ xam ne dañoo delloo battu rek ca ndaa la waaw. mais yi kontaan dañ ci ne ñëpp kontaan nañu parce que gis nga tey journée tey bi ni mu réussir journée bi tey ouverture bi ouverture bu am solo la te yaakaar naa dañuy ñaan rek yàlla làmb yëpp mel na làmb tey bi.

ñun ñi fi des tamit yàlla nañu yàlla saxal ci tuub ak jaamu yàlla ak liggéey. sëñ Modou Konte. bég naa bu baax a baax a baax bég naa bu baax.